waaye ma ne tey moom ay jigéen jël moom ni ngeen organisé kër kii di bale kii di fobee waaw lii moo baax ah ah lii moom kontaan naa ci trop tey yaay fobee sa bale ki ne ah lii rafet na moom lii rafet na de xoolal dañ ko jàngal nag aayul de ah aja mango aywa bonne journée lii moom bu ma ñëwee foo ma def ci dara tey alors piidi waaw na nga def man la sa papa ah dag maa soxla mbaa jàmm maa ngi fi ñuy jaayee fonde buntu assemblée waaw député yi laay jaayal ah waaw baax na baax na maa ngi fi maa ngi fi. lui entrer. Madame Amy. Égal Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, tu connais la nouvelle Quelle nouvelle Ali a été libéré. Comment as-tu pu être libéré alors qu'il vient à peine d'être condamné Il a tout simplement eu la grâce présidentielle pendant les fêtes de Tabaski. Il aurait un bras long au sein de l'État J'y ai pensé, mais le connaissant, il n'est pas du genre à composer avec les gens de l'État. penses qu'une personne de l'extérieur pourrait être en train de l'aider ah. Oui, mort. Mort, oui, parce qu'il connaît beaucoup de gens dans, l'administration. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va tout faire pour nous faire payer. Ali ah, ne nous pardonnera jamais de l'avoir envoyé en prison. Ça, c'est sûr. Il risque de nous dénoncer un jour. Oui, bon. Je pense qu'on ne devrait pas trop s'inquiéter de ça. Et puis, euh, les sociétés fictives, ça n'existe vraiment que dans la tête des gens, n'oublie pas. Je pense qu'on devrait plus se concentrer sur les pépites qu'on a en ce moment. Pidi et Dragon. Tu as toute Bon, je voulais juste t'informer de ça. Je reviens. waay Sénégal bu ñu delloo si waan cosaan ci ay valeur ci ay lekk ci ay ñam ah man que li booy bi naan ndekki démb yaa ngi da sukar naan ay waay ndekki démb yaa ngi dangay ngay sukar naan ndekki tey dañoo yàq ndekki démb yi eh, eh, ko mba mba déggoo sa baay <laughs> sa baye da bu wété corde vocale bi lay wéetalu ko. dëgg la nay def. oui tranquille alhamdulilah. nako dóori. bënal nan père wa loolu lañ ma wax yek ci ta ci porte bi nga ne. sa baye day arab fani yi ko sa baye rek ci bu dijj bi. père yow lu la ngay dugg. yengal yengal bilaay yow du la ngay dugg. wallaahi taw jiwul du la ngay dugg mais nako mu. maa ngi lepp lépp ma ja. maji maji. naka njaay bi. mbaa jàmm mbaa ci kom ah yow de paranga nga. toogal. oui non. uful. <laughs> waaye uuful Moussa yow sa eh, baay la baay day uuf doom non baa fa sukku ah baa fa sukku man daal yoroon naa fi benn mool eh, mu ngi ni moom la xale doon petit kaw yi léegi ci mbedd bi jëlal birig boobu mais père naka muy kuul ba ah muy kuul mu ngi mu ngi Louga waaye doomi rappeur da ku ko am waxi rappeur ngay wax <laughs> oui long time gars na trop sax déggal déggal déggal boo amee doomu rappeur moom waxi rappeur rek ngay wax. waaw waaw mën na ñàkk. naka waa kër gi. waay sant ñëpp a ngi si jàmm. waay alhamdulilah da ngaa naaje yow. non non waay jóg naa depuis dama bougé woon. waaw waaw waaw waaw woon après bu ma ñëwee xam rek naa kii. wax nga dëgg góoxal ma ñëw seet si la. góoxal góoxal sa bàyyi araw lii de. waay. loo gis. père yow kay gaa yaa yaa yaa yow yaa joob li. dooral. yaa ko joob non fa laa. maa ko joob boo jaay fonde. good food kay. good food. yes xam nga boo xasee ñam boo koy jaay. Mhm. bu duggee sa gémmiñ ku duggi waroo ko dugalaat fii te raxasoo ko. waaw bàyyi ta bàyyi eggale ko. dëgg la yow kon neel wax ji. <laughs> mais yaa ngi ci jàmm. Mhm. ba ñëw waaw long ah. a xam nga depuis bi maire bi décédé ba oh. léegi. xam nga. donc boo tuddee sa yaare sama appétit yëpp day dagg. Mhm. dootuma mën a lekk ndax daa am fu ma tolloon ci moom. continuel xam nga comme que yàlla def na liggéeyam te bu muy dem am na si lu ñu bàyyi woon mu nekkoon suñu carrière musicale. te ma si doon waxtaan ak yow lu bare bëri. Hmm. yàlla def na nag bi mu fi jógee dañu jàpp ne loolu nattu la rek li si des nag motivation la pour ñun ñi nga xam ne ñoo fi des ñu wane un bon exemple. taxoon nag ma newoon ci carrière bi. Hmm. ba génne benn single ba nga xam ne. adduna hmm. yëpp a ngi koy coow. yëpp a ngi koy seetaan. gars yi di ma bëggee fu nekk. dëgg la euh, ci kaw loolu ay bunt yu bëri tijjeeku ci. ba ma nekk si wàllum job album. benn album ba nga xam ne album international la war nekk. te comme comportement bang, ngi fi xam-xam baa ngi fi te mën nañ li ñuy def waaye xam nga Sénégal lañ nekk te dafa am la nga xam dafay des mhm. te lu gën bëri maire doon taxaw ci doon te wax dëgg sa yàlla yow même taxawaay nga amoon ak moom moo tax ma ne baal mu ñëw seet si la bu ko defee mu waxtaan seeg yow am na bëri xam ci si dimbali quoi bul tiit doom mhm. kàddu yi rafet na sa yaay dafa yàq sama àdduna bi mu sama bëggatuma dara li seen yaay defal ci àdduna ak teraanga bi ma suma len ko fayu len domi man duma gor dina len taxaw ba ngeen xamne taxaw na len xolal manam lamign ak beut mucc ci yomut waye dinaa len protéger ba ngeen mucc ci 100% inshallah gor gor lu len dina len taxaw ba ngeen xamne taxaw na len yeen ma sen fondation yeen buddi leen rek mu jëm kaw ma len tey ci souf na sa xel dal ah man ne ma yaakaar sax da ngay génn li nga def nii kontaan naa ci ma jëm <laughs> kontaan rek. waaw suñ ko demoo woo Alsaan mu attaaya ñu. Ah, waaw oo ko comme deewu ma kay maa ngi fi waaw na ñëw. Alsaan. Alsaan. indi papa. Alsaan xam naa ne ay mbiram jaaxal demul lool. comme eh? takk say daal. waaw <laughs> man de yaay booy dama am rendez-vous dama bëgg dem vite fait rek la loolu ñëwaat. ba doo yàgg. non du ma yàgg. waaw ah, doo teg ataaya bi kii concentré wul xaw ma ci lan la nekk nii. tegal ma ataaya bi moo gën. mais tegal ma paa bi ataaya bi rek. ñëw si kanam léegi. ok incha allah. yow de Alsaan xam boo ko juruwul ma ne ñaa ay doom bàjjen doom bu ah, jaay dama lay wax de Alsaan nii ah. fii ak ñaari weer mhm. bu amul liggéey armée la jëm de armée waaw ah loolu de moom d'accord ma nag ah. damaa bëgg gis samay sët nag bàyyi sama doom ji liggéey waaw dina dem armée nag ndax ña moom gënu leen ñooñu tamit ay doomu jàmbur lañu ah wax naa ko de daal moom tànk yi mu bëgg jubtee nii ak rab yi mu bëgg def nii xaw ma rab lan ànduma ci boobu ba tey maa ngi mu nekk nii dama doon jaay ni jaral naa daanaka tuutee ci des. dama am programme bu mu waroon dem sax. <laughs> programme lan xanaa ngay wut programme di jaay fonde. Eh, déet waruma di jaay fonde. Ah. programme mu taaxuraan am tey. <laughs> ah loo ci ree. loo ah, nga ni. taaxuraan mu ngi am lay lay la la doom amatul moo tax ma naan nañ delloo si cosaan bu bëggee senegal jëm kanam doom loolooy dimb taaxuraan ngel kasak yóbbu seet doom loolu doon cosaan <laughs> yaa ñëw démb nag yooyu démb la te yooyu amul woon violence gis nga bu njëkk sunu aada ak sunu cosaan léegi la xaw a yàqu rek bu njëkk bi da nga daan def culture way génn sa kaset cër du feeñ su pame du feeñ carotte du xonq ñun na simple rek dañ ko daan njar ni rek mu woyof léegi la yëfi xaw a jaxasoo rek yooyu fi newoon man kasagal naa ko na ci réew mi ah. damay bañ a tudd tur rek dëgg la non yow léegi li ñuy def mooy yow waaw hip hop bi ngay kasagalisé ma hip hop a kasagalisé ko voilà loolu mooy hip hop a kasagalisé <laughs> dégg nga fee da ngaa dégg non yow yow yow sa baay yow yow cata ñuy ba sa yaay dem billaay même yi sa dama ko manké won ndeysaan depuis boobu légui manam kuma mëna tok sax deug la xam nga waxtaan ak yow ci sama carrière mhm. waxtaan ak yow ci sama musique mhm. xam nga doli dolli maag yooyu daf ma doon manké bu baaxa baaxa baax non yalla baxna na la taxawu leppay baax dom kébé daal de père way fi la buujoo naa lu xaw a xaw a xaw mais yu ñëw rek daf ma xalé rek daf ma rappeur rek <laughs> mo ngi sanaay ah. <laughs> mais père ku ni day xam nga ba mu sama rek féré ko fofu wa kañ nga ñëwal sa bay jëngal eh, kébé naa la yow ngal ni ngeul la lay ñëwal bul sonn yow album bi buy génn. waaw non yow xoolal. nga jëngalu sa baay jëngalu. ngëlëj ngay los ma jox la bral kaa ci wëg. gën si ni nii los suñuy ngëlëj. gën si ni nii ba foog ñu di ah. wala boobu ko ñëw kewe kew. waaye niis. yaay si yaay si. sa baay mbay ndefoo de ko ci boole mbay ndefoo borom fonde bi ci koñ bi mbay ndefoo ku fi wang maa tax nga wang mbay ndefoo bay mbay fonde mbay ndefoo ku fi wang maa tax nga wang. jeeg ji sew ji de buñ ma rombe duñ ma nuyu ay sama yoon ci da ngeen di lepp rek xam nga ne booy bi jantal boy ngi ni ki bu la rek man nan mën naa toj dëkk bi hmm? waaye carrière mom bo bu mu gudd da ngay moytu je t'aime fo nek je suis libre je suis libre mo fi sa bay fi ci naaj hmm jooju ko ci moyul de ay na xoolal nañ changé sujet nag. parce que nag doo fi ñu war a waxtaan at naat suñu attaaya ngay indi ay problème <laughs> la ko tegal bëggoo ko wax dara sa doom ji <laughs> ngay changé sujet ah, baax na. waaye yow ci lan nga bëgg yëngu rek. man de ña ma amaloon problème. Hmm. du ma bàyyi de ba tey maa ngi koy yeggali. tey ni ma la woon rek yaa ngi sa famille nga gérer sa famille ñu seet leneen lu ñu def. bëgguma ñu duggati ci beneen problème ak dëgg ci dara wante xam nga ne man sama gàcce gi la ma la waxoon fii rek foofu ma setal sama leer kon moom wax naa la ko waxati la ko moom daal dencoon naa xaalis avant ngay dugg ci biir fi mu nekk nii nag damaa bëgg ñun ñëpp ñu takk suñu ndigg ah loolu dañu cee fekkoon sax ñu ne wax dëgg yàlla ñoo nekkoon suñu sutura di jëfandikoo ak li ñu am. waaw ataaya ji moom. Ah. xaw ma dem jëli gaz bi way ah. way. waaw nga def lu gaaw daal. <laughs> Alsaan moom ay mbiram jaaxal na ma lool lool lool lool wante dina xam ne may bàyyam fii la may fekk de maa ko gën a garaaw foofu. Les gars, à l'heure actuelle, le mouvement est dense et la concurrence devient une réalité. Right. challenge mm-hmm. après la sortie de ton single, nous allons nous attaquer au clip vidéo pour pouvoir, tu vois, euh, atteindre un plus large public et commencer à gagner de l'argent sur les différentes plateformes, bien sûr. Donc, si jamais tu as des idées de scénario pour le clip, n'hésite pas. ok maa ngi ci doon moyen sax parce que dama bëgg a benn affaire bu dóob quoi benn vidéo bu original et puis bu bëri créativité pas def video pour def ko mais def la xam ne bu ñëwee day révolutionner affaire ci côté visuel quoi comme que ci musique moom def nañ ci la maximum seulement que xam naa dama koy gëm a améliorer tuuti rek après ñu door ko mu daanu quoi. maa ngi doon am tamit ay proposition euh, day tourner ci école yi ak euh, booy ci école yi quoi tourner concert. ñëpp ñu bëgg liggéey ak yow dañu war a jaar ci man. non t'inquiète euh, non lay demee ça parce que c'est numéro de la balance quoi c'est numéro super quant à toi Dragon, mhm. tu viens de signer dans la maison donc demain tu vas commencer à travailler avec le beatmaker avant de passer en studio ok. ok d'accord a pas de problème en plus amener la chance au MPD PD comme conseiller ça me va. <laughs> super donc euh, vous pouvez partir. Et ne partez pas, ne partez pas, attendez. J'ai une nouvelle à annoncer. Ne me parle pas de. Non. Euh, Wolf Productions, yes. ils ont validé le projet de musique Wayama. Oh Def Dam <laughs> Alors normalement, yeah. on devrait rencontrer les responsables demain. Yes. Donc s'il vous plaît, soyez prêts. T'inquiète, l'homme est gay ndox paré nañ bu yag. <laughs> Yeah, rabat le drap. Ok, merci. Ok une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Je pense que là maintenant nous pouvons annoncer le concours et ouvrir les inscriptions. <sighs> Voilà. Donc maintenant on se met au boulot. Euh, non non. dara. ah damaa gisul tey néeg bi xeeñ benn cuuraay ah, mhm. euh, laaj lan laa bëgg danga koy nam ma. lu xew. dara. dafa la neex rek. <laughs> waaw. neex nii rek. kenn mu bëri caaxaan rek. xam nga naar ku ko woo ci guuxum soow. <laughs> yaa tayle sa bopp de. da koo bënti. naari xanaa. <laughs> naar day moom bëgg na soow moom. naar di bëggee soow ëpp na. carrément. ko léegi kay ay wane ay jikko yu bees moo xew. Ah. ku ne na wane jikkoom rek du dëgg. koy xulool ni. Eh, voilà bëggoon naa laajte lii. yow fer yi xanaa ñoom rek ñooy monté garde ana yeneen yi. dañoo jël congé. ah loolu baax na wane sa ay jikko bees. jikko mooy. gis nga ni nga may gisee ni ku doy war la mën naa kaf mën naa reetaan mais ay jikko maa la ci ëppale <laughs> dama bipolaire di dafa am lu xew ci kër gi te yeguma ko jàmm fi xew ah waa ah, kon kay wax dëgg jaru wax ju bari mais nag amul problème génneel ma bi ma bëgg waaye bu ñuul bi laa soxla fa la bi ci kàttanu yàlla mbaaxam hmm. di nga ko namm lool man mi ngay ko lool eh, nga bëri caaxaan nag <laughs> eh eh taxawal bala chat di la dugg dama ne yow da nga am fari rap wala da naax da nga teud ba di wara entraînement wala da ngay teud ak sawut lan li ngay teud ni sama kanam daf la jox rap wala dede aw ma droit sol sama dede man ma am droit di la wax nga sol lima neex <laughs> égoïsme le fam neewon ba tay mo fa kuy wone sa ay jikko kay dama lay wone man tamit dama bipolaire loolu amul ben problème de wa ñepp mënu yew rek woné leen sa kon dal amo ci ben arrière passé ni nga fassé yéene tëdde. da nga gis benen jikko. Eh, jëla eh, ki ne mané hmm. wuy ma. xam nga lan la. Hmm. sama maam waxoon na mané waxu guddi baxul hmm. donc buma sonal parce que dafa guddi dama bëgg tëdd dama sonn. lan loo def ba son gisoo luma def. lan nga fi def te ñu lay jappalé ci biir kër gi da nga gis da nga yaakar gisuma bi ngay liggéey ma ngi gis ñu lay jappalé di maa yaay kay yàlla baax kon dal paré nga ni da nga fassé né tedd ni dal jëro ci ben arrière passé bu ci yalla andé yalla bari na sudan ko paré day tay yalla baxna na. xamante ne nit ñi ay machine lañ dal ñom dal du ñu sonn du ñu def dal mel ni ay robot. ki ne mané eh ba jamm la. kon ni nga fassé né tedd dal wa mais ni lay tedd lan moy problème bi. yàlla bëri na yàlla bëri na sutura yàlla baax na. moom ko bëree day tay. ah gis na nag góob yeeg gis na wuy ma waaye farce nag. xam lii ndax na ma jëkk. doo ma bàyyi ma tëdd ngir yàlla kër gi ñëpp tëdd nañ. bàyyi caaxaan nag kenn du lii kenn du ko fooyee baaxul dama bëgg xam rek ndax danga jël décision nii nga fas. nii laay fanaanoo. mama mau teman naman dong jambur lah. Ah, Nah. Iya.